bismillahi irrahmani irrahim wa sala allahu wasallama ala sayidina wa maolana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi wa man wala jaalana allahu minhum sëriñ bi ñu ngi leen di sëriñ bi dafa sëriñ bi dafa wax ni ñu sàkkul ko ndigal ci yow ci lii muy bëgg a jëf nee na bu ci amee ndigal man koo tàmbali nee am nga ci ndigal bu baax alhamdulilah alhamdulilah kàddu gu gàtt incha allah nee na sarak nee na kàddu gu gàtt incha ndax fa ñu ko taataane la ak fi mu jëm si nee na li waral muy gàtt mooy kàddu gi fa mu tukkee ak fii mu jëm moo waral mënula gudd. ci tële ak lottaange ci ni ñu ko taataane woon ci mbokkam soppeem xaritam léppam di alxalifa sëriñ Babacar mu ni yëg ak lot ci mën ko toxal na mu ware jële ko ci sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour indi ko ci yow. ñu laltaayee ko ubbee ubbee turu yàlla subhaanahu wa taala sant yàlla bu baax a baax. nee na xanaa ñu laytaayee ko muy wax ji mooy ubbee wax ji turu yàlla subhaanahu wa taala teg ci sant ko. di def salaatu ak taslim ci sayduna muhammad sallallahu wa sallam. nee na di julli di sëlmal ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di ñaan itam suñu borom subhaanahu wa taala ci darajay ndawam soppeem boobu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla fayal suñu maam ju baax ji di maam cheikhul xadim nee di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci darajay sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama soppeem boobu yàlla ñu yàlla wuutu fayal ñu suñu maam ju baax ji maam Cheikh Ahmed Bamba radiallahu an sëriñ bi sa mbokk sa soppe mi ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel di la masawu coono mu ni sa mbokk sa soppe mi ngi lay di Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour nee na mi ngi lay nuyu di la ziyaara amoon loolu yéene ak mbégte ñëw teewal boppam ci jëmmi boppam waaye ngant téye nee na amoon yéene lii ñu ko defal wutu ko ci mu defal ko boppam waaye yàlla dogal ngànt gaar ko. ñëw ci sa wet toog bokk ak yow lépp ak fépp. na ñëw ci sa toog bokk yow fépp ak lépp. ndax lii kat xew-xew la boo xamante ni mbindaafoon yëpp a ko moom. ndax lii xew-xew la boo xam ni ku yàlla bind am nga ca cër. rawatina jullit ñi. rawatina nag jullit ñi. waaye ci biir jullit ñi nag rawatina moom ci jëmmi boppam ak njaboot gi yëpp. biir jullit ñi nag rawatina moom ci boppam ak njaboot gi yëpp. ndax lu leen yàlla boole la. ndax day loo xam ni yàlla leen ko boole yéen ñaar. fa tabaarakallaahu. mu ni fa tabaarakallaahu. kàddoom yooyu nag mu wuutu ci mbooleem sa xadra maam Cheikhul Hadji Malick. nee na kàddoom yooyu nag mu koy wuutul di ko ko jotalal mu nga ca wuutu moom it mbooleem xadra sa maam Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiallahu an waaye gunge ko ñaan gàttandoo ko ñaan waaye gunge ko ñaan gàttandoo ko ñaan mu jëm ci sa taxawaay ak ngërëm bu jëm ci sa taxawaay bu rafet ci diggante bi. ci lépp loo xamante ni rek itteel na diine ji. ci taxawaay boo xamante ni bii ñëpp xam nañu lépp lu itteel diine ji rek sa sa loxo nga ca biir. itteel réew mi. itteel réew mi. itteel askan wi. itteel it askan wi. ak jaami yàlla yi. ak jaami yàlla yi. ci lu leen dimbali. ci lépp lu leen di dimbali. ci lu leen di taxawu. luy rafetal. ci luy rafetal. luy boole. luy boole. luy yéwénal. yaa ngi ci suba nee na yooyu la yëpp gis nañu ni yaa ngi ci suba yaa ngi ci ngoon. ànd ak di la ñaanal. nee na moom daal li mu ñu yónni ñaan la ñu ànd ak ñoom moom it ñu nit di la ñaanal nag wëlbatiku di la ñaanal ñun ñëpp. gannaaw gudd fan ak wér ak kaaraange. gannaaw gudd fan. teg ci wér teg ci kaaraange gu jógee ci suñu borom. yàlla na la yàlla may ngërëmal maam Cheikhul Xadim. yàlla na la yàlla jox ngërëmal maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhu te ngërëmam mooy ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lu mu gërëm yàlla gërëm na ko. te moom moom ngërëmul maam Cheikhul Xadim mooy ngërëmal sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu gërëm yàlla gërëm loola. sëñ Babacar nee na mi ngi feddliwaat mbokk gi ak kóllëre yi ak cofeel yi ak yëg-yëg yi. nee na tànk yi tànk yi feddli kóllëre gi ak bokk gi ak teraanga ji ak yëg-yëg yi. yëpp ñu ngi koy feddali ci tànk yi. ba ci yoonu mujj wii rek nga yebaloon Serigne Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir mu ànd njaboot gu tedd gi ci teraanga yi nga xamante ni indi woon na ko nga teg ko ci loxo mu indi ko def ko ci liggéeyu jumaa ja ba ca yoonu mujj yi rek nga xam ni barki démb sa jawrin di suñu bàyyi Seyd Mouhamadul euh, Bachir bu maam Abdoul Qadir ñëw ànd ak délégation bu rëy ba ñu àndal. indi teraanga ju rëy ja nga xamante ni bii moom nga leen jox ñu yëkkati ko teg ko ci loxol góor ngi ci kilifa ga ngir mu jëm ci liggéeyu jumaa jooje nga xam ni moom la moom lay taxawul foofa. ak leneen lu xew rek ak lépp lu xew. nag gis nañ ni sa loxo noonu la ci demee. muy boo xam ni. na muy liggéey boo xam ni nag. ñu mel ne man ñu bari dinañ ci dinañ ci rectifié waat. na muy liggéey ak jëfin. woo xamante ni bii ñu baree baree baree baree bari dinañ ci dinañ dinañ ci seetaat seen bopp. dina dina tamit am soññ ci ñun. dina nekk it ab soññ ci ñi ci ñun. ci takku taxawu. ci takku taxawu nag. ci diine ji. ci diine ji. ci bokk gi. ci réew mi. ci réew mi. ak lépp loo xamante ni dinañ ci njariñ dina ca mën a jur. tey ak ëllëg. ak lépp loo xamante ni bii mën naa jur njariñ tey ak ëllëg. yàlla. nee na mi ngi ci teg nag di la ñaanal yàlla bu baax a baax. mashruwaat yi nga sumb ak projet yi nga xam ni yëpp yaa ngi muy ay sémb yu fi ne. yàlla na lépp sotteeg jàmm. yàlla na nga sottal ak jàmm. diil xayaati wa sixati wa mu ànd ak wér. ak jàmm. ak fekke. ak fekke. ak tal ak sago. nag. ak kaaraange. xam naa ni lott ci la ñu ci moom mënuñu ko jotal lépp. nee na kàddu ya jëlee woon ci moom ci ni mu ko waxe woon ci njàlbeen néew na doole lott na ci man koo jotal na nga xamante ni bi noonu la ko war a jotalee. boole ñu ak njabootam sa njaboot. nee na looloo taxoon nag mu boole ñu ak njaboot ñii mu àndal di sa njaboot nag. di sëriñ Mouhamadul Habib di doomam. si di doomam. di di sa doom. ak Serigne Sidi Ahmed si di ak Serigne Sidi Ahmed si bu Serigne Abdoul Aziz di doomam di sa doom. ak Serigne Pape xam ni. mu ne wala ak Serigne Pape Youssoufa Diop nga xam ni. bàjjan Asietu si bu sa maam Cheikh nee na bàjjan Asietu si bu Maulana Cheikh Al Hadj Malick. mi maam Youssoufa Diop ca Fass. jak maam Youssoufa Diop way juram. ñoo meññ way juram. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane gay ànd ak Serigne Ahmed Tidiane Guèye. waaye ànd tamit ay doomam di say doom. waaye ànd it ay doomam di sa doom ñu bokk ci délégation bi. di njabootam di sa njaboot. di njabootamit di sa njaboot. di alxaaji Abdoul Aziz. di alxaaji Abdoul Aziz Ndiaye. bu alxaaji Ale Ndiaye. mu ànd ak rakkam Ndiaye. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. ñi bari nañu. nee na ñi bëggoon a ñëw ñëpp bari nañu. waaye ñun ñoo ñii ñoo fi jiitoon di. wuutoon di leen. nañu bu ñu agsee tamit nañu aw ci alxaaji sëwru kebe nii bu ñu agsee it fii ci dëkk bi ñu àgg ñu jaar ci alxaaji sëwru kebe mi fi nekkal xadara mi nga xamante ni bi moo nekkal waa xadara maam Cheikh alxaaji Malick fii ci dëkk bi waaye di sa njabootu bopp di bopp it nag alxaaji Abdallahi Ngasama ca Daaru mi nga xam ni mooy imaamu Ngasama Daaru Rahman. ak Alxaaji Omar Kebe doomam. Alxaaji mu ànd ak it Alxaaji Omar Kebe doomam. ñu ne ñu ngi ànd ak it suñu rakk Babacar jaañ ñëw nuy si la. ñëw nuy si la. ziyaar si ziyaare si la. ndokkeel si la. ndokkeel si la. masawu la. masawu la. yeesal cant. yeesal cant. ak ngërëm. yeesal ngërëm. lépp bàyyi ko ci. ci ci kaddu yi sa mbokk lépp bàgg bàyyi ko ci kaddu sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour. ñu ngi jégalu bu baax bi. kaddu yii Serigne bi ñu ngi koy jégalu ñu ngi jégalu guddaay bi. ñu ngi jégalu bu baax. ñu ngi jégalu bu baax ak jataay beeg yépp ñu ngi koy jégalu. papa Abdoul Aziz am na teraanga yu mu indaale. nee na papa Abdoul Aziz mii Abdoul Aziz Ndiaye mii am na teraanga yu mu indaale. waaw ci ay gàtt. yu jëm ci ay gàtt. fukki gàtt la. fu fukki eh, nag la fukki nag la. ak fukki tonu ceeb. ak ak dëwlin. ak dëwlin. ak ya ca ànd yëpp. ak fa tabaarakallaahu fa gi nee na jot na nee bii rek doyoon na ci tey. alhamdulilah jërëjëf ñu lay jotal ah, ah, bi dafa wax ne jërëjëf rek xolam sori na lool. ci ci kaddu yi mu ne ci kaddu yi nga xam ne sëriñ Sidi Ahmed yëkkati na ko. sori mu ne sori na ci moom lool. dégg mu ne dégg na ko itam benn par benn. mu ne xolam sedd na ci guy mu ne xelam dal na ci rëteex. mu ne yaakaaram it dolleeku na ci. Eh, dolleeku na ci. mu ne suñu soñ suñu bopp yi dolleeku na ci bu baax a baax. mu ne mi ngi sant di gërëm bu baax. jotaay ci ndaw yi yu baax eh, mu ne ci jataay bii nga xam ne sëriñ Aba Aboubacar sëriñ Mbay yabal di jëmmam. mu ne loolu gis na ko bu baax a baax. mu ne yëg na ko it bu baax a baax. Eh, eh, mënuñu xam daal nu ñuy wane wala mu ne mënta. ci cant jëf ju rëy ji mën noo xam mën nu mu amul mu am mën ko mën noo xam nu koy nu koy tënkee wala nu koy waxee ci xeeti cant di cant yu wéy yu sóot ci ñun ñu xam ne wóor nañ ne am na dolliku nañ ci li ñuy jëriñ teegal la xam ne na jotaay bii dolliku nañ ci ndolloon lu wéy ci ñun alhamdulilah mhm. rek mhm. loolu rek laa ko tax diire waaw ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. mu ne xolam sedd na guy waaye xel mi dal na bu baax a baax. mu ne yaakaar mi dolleeku na bu baax a baax a baax macha allah. kaddu yi fa tabaarakallaahu rëy na lool mu ne kaddu yi fa tabaarakallaahu na lool. sell na lool mu ne na lool. neex na lool mu ne neex na mën na sëkk. fa tabaarakallaahu nee na mi ngi sant bu baax a baax. ni mu demee ci ñun ne moo ñëwoon itam. mu ne jëmmi sëriñ Sidi Ahmed mii ni mu demee ci sëriñ bi bu moo fekkoon jëmmam ji képp moo ñëw képp moom doy na sëkk waaw waaye taxawaayam dafa sori ci moom lool mu ne rawatina bi mu àndee ay bokkam yu baax yi mu ne jógee fa ñu bàyyi ko ci sëñ Aboubacar ba ñëw ba ci jataay bii mu ne loolu réy na ci moom lool mu ne sedd na xolam jërë ngeen jëf mu ne xamul lu mu a wax rek ndax li ci waaw mu ne léppam cant la alhamdulilah jërëjëf. mi ngi seedeel sëriñ bi tamit suñu eh, ngi seedeel sëriñ bi nag mbégteem. ak cantam. ci suñu rakk ji di ci seen rakk ji toog di sëriñ Chouaïbou. ak yëpp ak mbooleem njaboot gi nekk. di ko dollee sàkkul ñaan. di ko dollee sàkkul ñaan. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax a baax. ci biir ñaan googu. ñun nag ñu ngi ci biir ñaan googu yi. fa tabaarakallah ñu ngi leen ko a dénk bu baax. bi ne it mi ngi leen koy gën a dénk bu baax a baax. jërëjëf Mbacke tabaarakallah jërëjëf teewlu. waaw waaw seeral gën ñu ko seeral bu baax. gën ñu ko santal bu baax. jërëjëf incha allah jërëjëf incha allah. nga xam ne wala li ñu séq. Mm-hmm. Euh, moo ngi seeral suñu borom nag. Mm-hmm. Euh, daan ko ko sàmmal. alhamdulilah alhamdulilah sàmmal ko xadra ba yëpp. xadra ba yëpp jërëjëf li fekk noo ngi noy incha allah. alhamdulilah càmbute googu yi dañ ko bu ñuy dem dañ ko yóbbaale. alhamdulilah. jërëjëf ñun ñii ñun ñii toog ci jotaay dem yenn saa yi dinañu feeñalal sa cofeel gu mu am ci yow dina ci tudd ñaari yëf ñaar rek bu jëkk bi mooy woyof gi mu yëg ci yow ci boo toogee ci sa biir njaboot njaboot lañu nee na Abdou Aziz ak ak Baye mii rakkam njaboot lañu ay lañu te ay ndaw lañu it nag. waaye ndaw yu waaye ndaw loo xamante ni bii ñu tënku ci kilifteef lañ topp ci seeni kilifa. yuy xeeñtu jub ak jubal. tey nag ay ndaw yuy xeeñtu jub la ak jubal. dara itteelu leen lu dul jëf lu baax. dara itteelu leen lu dul jëf lu baax. dellawaat ko ci jaamu yi dellawaat ko ci jaamu yàlla yi. sàkkul kon sëriñ baa ngi la koy sàkkul ñaan te di la ko dénk. loolee li koy firndeel. Mhm. démb rek. waaw ju ji. waaw moo tax sëriñ bi tamit xam loolee nga wax nii ci moom. moo waral mu jox ko siyaada. ak kaamil alxuraan ak kurus. Ah, alhamdulilah bokk la ca gën a am lañ ko waxee dañ ko taxawaay ba ba ma ah. wax nekk moom ba mu ñëwee rek loolu la ko wax ne ko la ci yokk yëpp taxawaay ba nga xam ne def nga ko foofu ci Tiwaawoon mu ne loolu doon na sëkk waaw lépp lu mu ci yokk rek ak ndolleen la waaw moom ci Abdou Aziz Ndiaye waaw jërëjëf macha allah